ñuy rey suba ak ngoon guddeeg bëccëg nit ñi bëgg a. ñuy génnee seen livre bi naan balaate daan waar. ba pare nit ñi di gën di wu. vraiment xam nga émission bi c'est émission matinale. il va être fou. livre rouge kay lañ ko waroon tuddee. waa c'est pas le moment opportun. Mm-hmm. voilà dégg nga. nuyu nañ la léegi nag. Hmm. ah billaahi wax nga dëkk non nee na yem nga sa baay nag. ay waay ay anam yi bu ma jaxasee sama. dëgg la de li nga wax amut. ay anam <laughs> Eh, yaa fi def lu musul def toog di gaaruwaale sa papa. waaye sa si c'est grave. yow suba fajaro na nga ñëw. <laughs> man donc eh, kese boo ñëwee ñu ubbil la. nga toog rek mu def émission bi. yaa toog fii. gën a gàtt nag na nga jël ñetti points yi. maa ngi jéggalu. te na nga waxtaanee ñetti points yi. ma ma dellu si waatal ci l'affaire Khalifa. ma wala ak député yi. ak. Euh, député demuk demuk Diomaye gi ci Sine. député kay du ma ci waxati moom ma indil lii kay. du ma waxaat ci député yi. demuk Diomaye ga dégg nga. Mm-hmm. voilà léegi. sama mbagg mu métti nag. Hmm. man xaw ma indemnisation les les blessés de de de de. pourtant loolu laa la bëggoon laaj léegi. loolu fu mu toll loolu fu mu fu mu toll waaye. Ah, waaw Ousmane nu dimbali accéléré loolu waaye. commission yëpp da ngi dox. yow da nga caa da nga caa bokk soose. sama waa laa bëgg. indemniser am na victime bi. dafa bëgg waa ji nag. dañ ko war a indemniser. man de man victime bi ma doon jàppale nii fi ne nii ku ma ci woon ni ma woy honorable xam ma a doon victime. mbagg ba jugatul fi ne nii xanaa xaw xanaa xaw dëkk bi nappaate doo nga fi ne damay nappe nii rek de mais ku ma xeexaloon nii boo insister cinq minutes ma reculer ndax jug mën a toog benn bi jugul mi la mais damay nappe nii rek doole amatul <laughs> gars yi ma ne eh nga gis ñu toog te eh mais damay toog bi rek laa utiliser fi mu ne nii booy ne ma mais seen journaliste bi présenté fii nii seen télé boobu maa ngi kër nandi tey no kii présentable na macha allah man ne ko waaw ah, ndeysaan moom nag jàmbaar la quoi. dina mbagg maa ngi xam ne li lii soose dafa garaaw. waaw mais non non non yow yow yow yow double indemnisation lañ la war a jox. c'est que gis nga loxo bi ci poxotaan bi. Hmm. bokkul ba léegi ak ki nga xam ne moo moo moo moo ma gaaw. ki ma gaañ mooy ki téye ci sa cat li xoolal gis nga cat nii. kii moo fa waroon teg bi rek gis nga. li ma jaaxal Abel yow li mbooloo mi di bari bari yow rek lañ ci def nii de. un deux trois quatre cinq. c'est parce que ñeneen ñaa ngi taxaw. cinq la kii xoolal kii. est-ce que xam nga lu ah. a xataraay maa ngi fa woon. Hmm. cinq. loolu mooy problème comme que yow yaa ngi ko xoolal mbax na am ñuy R <laughs> bi boo fay dem doon del xool mooy solo. <laughs> mbaxana mi mel ni R plus 10. mbaxana du fekkee coono ba nga ko fekkee mukk. foo ko woon ni xeex day am. da koo ca fajar man de xeexkat pourtant xeexkat baa ma romb rek de ni ma xoolal dekk leen seen karabaat yi. Barth waaw romb nañu nii rek nañu simbi leen seen karabaat yi. balaa tey gars yi jàpp gars nañ leen fi kii de nañ leen fekk de. ma gaaw ne ko cas lem woo teg ndimbal Omar Ndiaye ñoo ma jox ko ndànk jox ko sama portable di jaay giree. même Guy Marius ah, Sagna kër yi képp koo xam ne image yi choqué na la. na kër yi jib may sama papa ji ay kër. merci beaucoup taxul nga dabu. la doon wax ci présentatrice ba ca gën naan di tey. waaw xoolal lii aywa képp ku image bi choqué rek dugalal euh, dugalal ay kër lii ñëpp la war a choqué. Hmm. des des cœurs pour mon père. xoolal Amadou Mame Diop ca kaw xoolal Ahmed Niang. moom moom xeex la war a bàyyi. xoolal ndaw si ndaw si nekk si ginnaaw mi ngi taf gémmañ yi mi ngi leen di ree. Kéré yow xanaa xanaa xamoo kee kan la. kan la kee moom laa lay wax ne la mooy nit bi ñu jël placé ma ko man mooy meeru Ndiaffate. yow yow la doon moom na man day xaar chaque jour bu ma jëlee parole mu doog a jël parole. moo tax léegi de du mu xeex Guy Marius Sagna. voilà Macky moo ne ko léegi ku nekkee na mais kooku man ku nekk ak sa si. yow la tippoo voilà. tant que yëkkatiwoo loxo duñ yëkkati loxo. moo tax xol bi képp ki image yi choqué. maman maman maman Fatima Niang nee na yow blessé de guerre nga. blessé nga yow. pas une guerre froide. yow de kii guerre ouverte la physique doole. waaw yow moom. voilà yow triple indemnisation. boo raam Ousmane warul woon lu mat ñetti weer ci nguur. Mm. te waxuma ne ma mbagg mi fi mu toll. waaw waaw c'est oui ñoom aussi dañ leen fal pour ñu xeex injustice. naa yàgg yu a a méttile. yu ma di sànni mu tam teewoon nañu ko teebu métti. jour boobu yow. idée dañoo jékki-jékki fat ñu ci néeg <laughs> mooy commandant mu ñëw naan ko di li barki démb la de sama mbagg mi mais commandant sama mbagg mi doo leen jox mu ne ma pourtant sama bureau lañ leen indi woon. nga ne ko balaa nga ñu fay indi loo ñu def. képp koo xam ne. Ahmed soxal na la te te image yi choqué na la mbir mi mujj naa rouge nag affaire bi naqari na Sénégalais de. wallaay ndeysaan dañ laa bëgg tellement de pétition. Hmm, gars yi signé. pour la mbagg da Ahmed pour la mbagg da Ahmed. pétition pour la mbagg da notre père. voilà. Mhm. oui ça c'est mu ne xoolal yii présentateur présentable na de macha allah ma ne ko waaw ndeysaan moom day jàmbaar la mhm. benn jour rek ma ànd ak moom foofu ngoon gi nii doon def di defi voix damaa bëgg xaalis. Mhm. def publicité ba pare xam nga gone yi bu ñu maquillé gu leen loolu re nekk ci chapeau yi xoolal naan nii xoolal waxal Fatmata Diop mu jox ma au conseil kan moo wax porte parole bi boobu ma kii yeegul kat ban heure jot yow xoolal ma yow léeg-léeg mu ne nii. waaye fi tey yow lay ci jël lii. soo soo wuy takkul weer takkul dara. bu taxawee takk veer yi moo Elisabeth njaay kiif kiif ma ni ay léegi xool tomb <laughs> léegi la fulaar yi xoolal raj ak ci kaw tegagul périg bi de bopp ba mel ni tool <laughs> xoolal waaye am sapo bi yow joxal ma simeer am sapo bi doxal jë traversé romb sama xarit bi romb ko rombaat ko <laughs> waaye jékki-jékki ne ma télé daal baaxul ma ne ko am découragé na. ndaw si dëkk yére rek la des. ndaw si kay ndaw si kay soo indi ko yére rek. c'est vrai de parfois nga gis ni si télé nga génn te seeg moom danga naan est-ce que kii laa doon gis. maquillage yu bëri dafay. Ah surtout ñun jigéen ñi xam dañoo bëgg maquillage. bu ma la ji ba ma yéegee ci scooteru ngaala bi bañ tawte. extraordinaire. almadi lañ jaar de tawta nag ma sawaay supporté ma waa ji di ma xool di ma xool ma ne ko walaay juumoo man la man nii la man mii la man a man a soose mu ëlbati waa mais kii moom la wala moom mais grand bi kon ki may ci télé bi ci moto bi nii tawte nii nga ne ko mooma de ma ne a a ma ne ko walaay man a moor yére rek la dese xam nga mbër ndekete kii yére rek la dese. te boo ko gisee si télé bi nga ne indo la. dañoo wuteeg sama doom yi de. waaw ñun nag boo ñu gisee nii ni ñu mel nii lañu ñu mel. noo liggéey xale. waaw ñun dañu rafet. gisoo ñun ñii jëm nañ mag di. Mm-hmm. ku xeesul da ngaa ñuul te ñëpp a rafet nag. dëgg yàlla tarkal tarkal yaa ko fa am nag. tarkal waaw maa ko fa am de. Mm-hmm. maa ko fa am te luyee ma ko jaayu ma. mën ngaa fëgg sa dënn waaw waaw te dama ko fay xaar nag. Ah, ah, di ko jaay nag. mais léegi la ñu ne ah sa doom jee nga naan ah dama ko fay xaar nag maa bàyyam <laughs> fekk boo demee xulóog bàyyam rek la fa nekkoon waaye ma ne dama ko fay xaar dégg bés fi la jour ñëwal ngeen ci. kii na nga def revue de titre bi day xëy man damay xëy amet dimbali dimbali <laughs> ko day xëy. Ah, moom laay waxal. <laughs> képp koo xamante ni nii sama mbagg mi mitti la defal rouge na kër yi dugg na kër yi dugg dégg nga kii nee na pour sama nijaay pour ñu jëndal ma ay pommade yooyu. waaw voilà cagnotte pour sama nijaay. dinaa leen jox sama numéro rek comme ça foog ngeen koy tey non non def ko sama numéro direct. walaay wóolu ma la yaa ma ëpp soxla doom day jigéen nga. man damay jóg rek wattu neel rek teg ko ci. mën ngeen ko def rek mukk ci àddina 156 après li ci des dinaa leen ko. mukk ci àddina 650 bi. <laughs> <laughs> sama doom yii laay dégg nga des bi la jour ñëwal ñun ci bilan fukki at ak ñaar yu président Macky Sall hmm. APR daal combat mbaa ngi ni lay contre le projet Sidiki Kaba ne loolu ñu dajale di inventaire mbéta ko yor bu jëkk hmm. dégg tontu la loo xam ni soosee waaw une réponse limpide nee na nee na aux déclarations populistes ne waa projet bii di wax parce que seen lépp wanewu rek la kese maître Oumar Youm nee na ah <laughs> maître Oumar Youm doon ñaaw na laa miin tamit nag. non non li mu wax ah. rek fii demit di ngeen fi gis dootul yàggati dara ay doom yoo xam ni ñi leen di ngénte duñ seen bàyyi xanaa inauguration yi la bëgg a wax projet yi. ni mu ko waxee. te noonu rek la ko mën a waxee. Ah! vous verrez sous peu des baptêmes d'enfants qui n'ont pas enfanté waa mais Omar Youm tamit nag awaak mënti. nañuy rafetal kàddu yi waaye kàddu yi nay rafet. waaw. Ah, Mansour Faye waaw Mansour Faye moom. Mansour Faye moom li mu wax mooy. gorom bi la bëgg mu dikk. Macky waaw. waaw waaw na ko de. waaaa daago nag fañ la nomee ñoom nag wane nañ ne bëgg nañ seen waa ji te nopp nañ seen goro bi moom Mansour Faye réclame le retour di gën a goro bëri nañ goro waaye goro bu mel ni Macky ñoom nee na daal ci kaw gàttal na ñëw balaa maa utiliser gros mot dégg Amadou Ba nag l'absent le plus présent am démb demul ca ndaje ma waaye am am indil am am am indil am am indil am mi ngi nii mi ngi nii dégg police nag fi mu nekk nii raxas nañ ko ba mu set ordre sawel ko diw ba mu def na si nañu division des investigations criminelles sûreté urbaine commissariat central mi ngi raxas nañ ba mu set. amut. suy ma laajoo. Baara Sankare borom force spéciale force occulte jëlee nañ ko. Adramé Sarr jëlee nañ ko dig ressources humaines lañ ko yóbbu Mamadou Teg nañ commissaire commissaire central Wali Camara aéroport. ñuy dem rek ñu ne dee dinañ dem rek te te te ne duñ bàyyi aéroport yi moo tax ñu indi Wali Camara. amut. kon taxaw buntu AIBD. ñaari aéroport benn bi kilifa nga fa lay jaar ak yenn ci ay ganam benn bi nag mbooloo mi fa la ñuy jaar ak ñi bëgg ne poset waale ngi nii. du xam nga lii rek signe la. mooy dem leen ngeen riigu bàyyi leen tukki. dem leen too mais demal too ba député beeg maire bi jeex juróom benn weer jàpp at laay toog way ilaa bu may tukki. man damay yëglu wax kilifa gi ne ko man damay tukki mu ne la ku la fi nga ne ko bañ a dem ba aéroport ñu naan la dañ la fichier dëppal may am gàcce ñu naan diw dafa dem ba fële dugg na fi génn fii moo tax mu ñëwoon ba ci yéen ñi ngi dénk wàllu kaaraange réew mi laaj leen ba xam sama tur bi dugaluñ ko ci machine yi ñu leen la ba fii déedéet nga jël sa roppalaan dem waaye yow dem nga ñëw ñooy demal toog nga weddi nga tukki ñëw dugg ci dëkk bi enregistré ah, wuñ la xaw ma foo jaar day jógaat di dem ñooy demal riigu demal toog waaye li Camara. ñu ne ko li nga bëgg amut. amut duñ sonn rek duñ sonn duñ sonn duñ sonn ñun waa koñ bi lañu dégg voilà xam nga sama loxo bi xam nga sama loxo bi laa doon joxoñee soose. mais gis nga léegi je peine ah, il faut qu'on fasse vite là. ko sax. est-ce que yow la woo. mukk ci àddina. mukk mukk parce que ci fajara bi lañu ko lañu ko flashoon. déedéet eh, déedéet du moom wóor na yàlla du moom keneen ki la beneen kilifa bi la. ah keneen ki la woon beneen ancien policier bi la waaw. waaw.